Jazboul Mouride TV seen émission taaru yoon bi dikkaat tey fii si Touba waaye si armeer yu tedd yi ku ne xam ne lii ngeen gis si ginnaaw mooy barab bu tedd boobu di barabu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina kon mbokk julliti ginnaaw bañ leen sant ginnaaw bañ leen nuyoo di leen siyaar waaye di jiital si nuyoo beeg siyaar bi Serigne Mountakha di ko ñaanal saa borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye ni ko loolu di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér seen émission taaru yoon bi tey fas yéene dikk génn si waxtaan bu am solo waaye waxtaan bu demee nan ku xool barab bu tedd bi suñu ginnaaw xam ni mooy barabu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina ñu si faral di gis ay siar waaye tey li ñu fas yéene war may barab bi bu ne war may barab bi xel dem si lépp loo xam ne day taaru si wàllum taar waaye war may bokk na si bokk na si war may war maa jëmm yi si bépp anam boo xam ne moom la ñu war a siyaar si e, barab bu tedd bii nii si wàllum melukan, waaye si wàllum dohin, si wàllum colin kon ñu fas yéene dikk gi yéen si ay détails bu ñu nee détail xel yëpp dem si wàllum ku ne gis na ne buy dugg si barab bi da ngay simmi say dàll waaye waxatuñ lool da simmi laafa bi nga sol bu dee soxna nga da ngay muuru ba muuraay bi yees bu dee guur yàlla da ngay sol lu jot ñu siy bañ yenn colin yu yenn colin yi yenn colin yu saayre kon mbokk yi dañ leen doon eh, eh, tijjil jootaay bi rek duñ def lu dul dugg si biir jéem a fekk magum taalib ñu fay fekk waxtaan ak moom si warma yooyu comme nañ leen ko waxee léegi léegi si barab bu tedd boobu di barab maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina ñu dalaloon suñu mbokkum taalibe su Mor Talla Sarr ñu fas yéene waxtaanee war may barab bi waaye war fas yéene waxtaanee tegginu barab bi ndax tey buñ ne taaru murit lépp loo xam ne day taaru yoon bu tedd bii di yoonu murit waaye ku ne xam na ni ni mbokk taalibe di chargé barab bi waaye nu mbokk taalibe di dëkkisee barab bi si wàllum taar wala si wàllum yar si wàllum teggin loole lañ leen fas yéene andil tey mbokk yi si jotaay bu am solo ñu dalal seeg suñu baay ji di sëñ mortaal xanaa duñ def lu dul jox ko kàddu gi mu siyaar ñu doog a dugg ak yéen si si jotaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. sëy naa ñu ngi leen di siyaar bu baax yéen mbokki taalib yi yéen a fi ñëw. ñu ñaan si daje sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha sama boroom yàggal ko fi sa wéral ko si daje si daje suñu paak Cheikh di ñaan it seex Cheikh Jëmb Fall sama borom yàggal ak taxawaayam defal ko wér yaram biir ak jubbiti sa yàggal ko su suñu kanam mën yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal defal ko njaboot ko Sëñ Tuubaa gépp ak njaboot ko Cheikh Ibrahima Fall gi. waa kay jërëjëf mbokk yi si kàddu yi am solo ak nuyoo bu am solo boobu noonu Serigne Mor Talla eh, nuyoo ko mbokk jullit yi ah, ñii seetaan partout dans le monde à travers seen chaîne boobu di Jazboul Mouride mbokki comme ni ñu leen ko waxee léegi léegi ñu ngi fas yéene dikk ak tey si suñu waxtaan googee di taaru yoon bi. tey ñu fas yéene waxtaan wàllum si wàllum euh, wàllum wàllum barab bu tedd bii nga xam ne suñu maam ju tedd jooju maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina moo moo moo moo fi ne waaye ak ak mboolem njaboot tey ñuy gis wàllum loolee ñu naan màggal tubaa wala sax bépp màggal gu fi jàll wala lu màggal sax mbokk yi di bawoo fu ne waa bitim réew ak fu waay mën a nekk ñëw di bar di ñëw di ñëw di siyaare ngir am yoolu siyaar waaye di siyaare barab yu tedd gii di barabu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag kuy siyaare war nga am melokaan goo xam ne da koy melokaanoo waaye war nga am wàccuwaay boo xam ne da nga koy wàccuwaay ngir barab bi nga jëm kat wax dëgg fa yàlla ku sab sëriñ woo woon ngir sant la liggéey dina am loo xam ne di ko waajee ngir dem loolu ginnaaw loolu kat ñun ñëpp nga xam ne ku ñu yaakaar ñi ki la yaakaar muy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridina waaye di si siyaaraat mboolem képp kuy bàyyi faal rek te bàyyi xel bi rawatina waa kër Serigne Cheikh Fall borom ndigal waaye buntu kër maam Cheikh Fall yëpp kon mbokk yi loolu la ñu leen fas yéene waxtaane ngir yow mii seetaan seen émission taaru yoon bi xam bis booy ba wooti sa dëkk bu munti doon di ñëw si barab bii ni nga war a melokaano ak ni nga xam ni moom nga war a euh, euh, comporté yoo boo teewee si barab bi moom lañ leen di fas yéene dikkal ànd ko Serigne Mor mu andil ñu li nga xam ne moom la barab bi baaxoo di doxoo ak li nga xamne mom lañ fi tëral muy charte yi nga xamne mo lañ fi tëral ba kuy ñew si barab bi xam na fi wara tewé bo ñewé fekk leen fi ñom ak ñi ñu di siyaare baax baax baax Amdi ak mbolé magu talib yu nekk fi yépp kon duñ def lulul jox si mortala mu and mu dik ak yeen ci mbokk talib yi koy seetaan xam ku ci nekk rek bo ñewé lan ngay lan nan la barab bi di di di teddo si walum comportement ak ci walum yi nga xamne mom lañ ko fi téré si téré yi kon mën nga dik ak ñun ci téré yi nga xamne ne moom téré muy ci walum soxna yi ak si wàllu góor yàlla yi soxna si dugg fii wala góor yàlla bi dugg fii ana nan la war a comporté wo si mortaala ñi nga xam ñooy wàllu góor ñi dañu bëgg kenn ku ne balaa ngaa ñëw sëñ bi na nga yees lu am njàpp ba sell doo ko ñëw sëñ bi te it booy ñëw nanga sol loo xam lu jot lay doon bëgguñu ñu sol ku ñëw di sol loo xamante ni tubéy la joo xam ne day day yuddeeku wala bopp boo xamante ni bii dañ koy wat dañuy wat lii baye li yoy yep sëñ bi da ko fi aaye ci bir barab bi mbum mi ngay sol it bëgguñu mbubb moo xamante ni day gatt ba xamante ni bi sa sa tekk jare ji du sangu yoy yep sëñ bi da ko fi aaye li ñu bëgg it bu dé walu goor ñi la kawas yi ñi xam mom lañuy sol ci bir barab bi mom sëñ bi sëñ Mor Mita daan wax ne dal ak kawas ñoo yam lepp lo tee yegum naaj ab dal kon jëmmi da kawas yi ak di melni xéetu kawasu kiwiir yooyu yépp sëñ bi da ko aaye woon ci biir barab bi ñuy warmaal barab bi ndax ku jëm sa kilifa kat da ngaa war a waaj ba jekk kon nag bu negam dañuy ñëw si Cheikh Ibra di waaj say sàkku si kay ñëw di sàkku si war naa mën a moom jëm boppam xool la muy sàkkoo ak nam koy defee ak bu bu ñaanee na ñaan ngay nangu na si bégee loolu lépp war ma la joo xamante dañ ko war a jox bu jëmi barab bi muy fii muy si jumaa ji muy barabu kilifa yépp foofi dem fu ne da nga war a joxe waru mat sëkk sëñ bi danaa wax ne boo ñëwee di siyaar sa kilifa boo ñëwee da nga war a toog tooginu kuy julli boo toogee tooginu kuy julli ba noppi da nga war a jublu penku ñaan boo ñaanee ba noppi doo ko ñaanal sa bopp boo ñaanee sëñ ba noppi da ñaanal sa bopp boo ñaanee sa bopp ba noppi nag boo jógaat it mën ngaa mën ngaa jógaat ndànk dem waaw loolu lépp si si war may jëm joxe barab cëri barab bi rek la ak fenn fu ko mën a defee rek ndax ñun taalibe yi si boppam dañoo war a yaatalante suñu biir kenn ku ne la nga xamante ni moom moo ne sa biir si lu rafet nga def ko sa moroomu taalibe bu ñu ko defee rek lépp day mat wàllu soxna yi ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di ñaan it buñ dee ñëwati nañuy waaj ku si am ngàntu mën naa toog ñi nga amuñu ngàntu sa mën a ñëw buñ dee ñëw nañu muuru ba seen cër yi nga xamante ni bii cër yi nga xam moom lañu bëgg mu sàngu mu sàngu te Jip yi nga xamne ki mbub ki rob yi nga xamne mom lañuy sol di jël tubay kessé bu ñu mëna dimbali bañ ko andi ci barab bi mo ñi gënal ndax bëgguñu kenn di ñew andi ko ci barab bi ñu lay jox yeneen worma ju bokkut ak loola dañu bëgg na kenn ku fi ñëw na nga andi worma yooyu ñu la wax booy ñëwit xef yi ñuy monté buñ ko mënee bàyyi sa kër ga ñu bàyyi ko sa kër ga ndax bëgg nañ ko si yokk karaw it buñ ko mënee bàyyi ñu bàyyi ko ngir ndigal ndigal lii suñ mu joxe ñu loolu lépp war ma yooyu yëpp sëñ Muntaxa moo ko joxee kon nag war nañ ko mën a joxe waat fii si biir barab bi ni nga dañoo ñëw ba suñuy kilifa war nañ ko fi mën a joxe dégg nga léegi nag dañoo bëgg loolu lañ bëgg ni kenn kenn ku ne sax dañ leen koo ñaan it ñaan képp la ndax kenn du mën sañ ta force sa moromu taalibe ne ko lii ngay def si for force kenn du ko def waaye dañuy ñaan mbokki taalibe murid moom sëñ Moussa day wax ni dëgguruñ bopp ko ko si soñ ku ne rek. dana xam na ko soññee ndax ñoom ñi ñuy soññee ñi ñuy soññee ñun ñoom it noonu la ñuy soññee buñ gisee loo xamante ni bi warul si barab bi dañ ñaan ah nangam ak nangam ak nangam ne warul si biir barab bi ñu ba ñu baloo la sa ndax ñun ñoom ñëpp ay murid lañu seen ñun ñëpp lu baax dong lañu bëgg kenn bëgg fi ab soxan waaw biir barab bi am na ay sécurité yu fi nekk yoo xam ne ku wax ba ku ñuy wax mot seen nii mooy mooy jëwriñ ci mot seen mee toog mooy jëwriñ ci am na fi it ndawam lu mu fi bàyyi ñu wax juuf mi ngi fi mom si biir barab bi ak ñeneen mbokk taal bi yoo xam ne ñoo koy ngi fi barab bi yooyu yëpp dafee ne léegi nag ñu bëggoon kenn ku fi ñëwati ñu dimbal ni ngir yàlla ñuy waaj ba jekk waajin wu jekk ànd akub taali bi yar ak i teggin sa jox sëñ bi war ma ji. si wàllum accessoire accessoire yi nga xam ne moom lañuy moom lañuy tere si barab bi comme accessoire mun nañ ko wàllum jumtukaay comme lu si mel ni ay lafa ay casquette yi nga xamne mom la di sol ak yenn yi nga xamne ay càkk ak wala ay takwa yi nga xamne mom la góor yàlla di takko nga xamne lolu ci sa lañ ko mëna xamé kon lolu yan yan disposition ngeen si jël manam yan matay lolu mom kep ko xé andi nga ko fi dess na la ko wax dañ na ah señ bi bo mënoon dimbali nga tekki lam yi nga tak wala nga tak ci tekki ceen gi ñaw dañ la koy ñaan tayit bo du gis bi barab bi fekke ne da nga yor appareil muy wax nga dimbali ñu fay ko ba génn ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw di ñaan di teewlu sa boo taalee sa rajo mën nañ koo dégg mu yàq seenu ñaan loolu lépp dañ ko si sàkkuwaale di leen ko ñaan ñoom jërëjëf si mortala si loolu nga xam ne leeral am solo yooyu mu andi ñu si déggee ne wàllum góor yàlla gi nga xam ne da nga dikk si barab bi te siyaar rek tax laa jox liñ leen si liñ leen di digal dégg ngeen ko muy wax ni kat eh, Serigne Serigne mor amin tam baax ma wax naan lépp loo xam ne lay tere yëgub naaj ab dàll la moo waral képp ko xam da ngay sol kawas wala ngay sol dal bo dikkee ba ci barab bi wala sax laataa nga djub barab bi koy simmi daal koy tek ba ñew siyaar daal dem ni ki lañ ko diggé tamit si kàddu yi am solo si walum soxna yi nga xam ne képp koo xam da nga yokum karaw daanaka wax ma la sax lu barab bi waaye lu wër tuba dañ ko fi dañ ko fi aye day dikkat si ndigal lu tedd go nga xam serigne muntaha mbacké mu tedd mi yeesalaat nako ci si dëkk bu tedd bi waye nak képp ko di mourid mom jëfë ndigal waye ba tax lolé ñu doon moy war may bari war may nak bu rafété ñu wara mëna dugg si tar gi tar gi nak gis nañ ni mbokk talibé yi eh, dañ fi faral di dikk mo xam Samfali wala wa Europe bi ñii di dikk ñom di biral seen seen liggéey si walum tour yalla waye ñi di dikk di biral seen liggéey si walum parfum yi séri yi barab bi bo fi diggé xet gu neex ngay xéñ comme ñi fi dikk danaka ma ngi soñar sama bop di soñar mbépp bo mbep Baay bayfal ni ngay togué di jang alcorane xéñ lu neex sol lu rafet comme ni ngeen ko gisee ñun ñii suñ jotaay bi ñu solo waaye loolu dafa war si bépp murit kon ñu dikk ak yéen si taar gu tedd gi taar di taaru barab bi nga xam ne boo fi duggee xet gu neex gi ngay xeeñ ak mbokki taali bu ñu fi teeyee di jàng xasida di durus ñii di durus ñii di yëkkati tur yàlla bi ana lan ngay joxaat ñi nga xam ne ñu ngi seetaan comme ku fi ñëw rek maanaam war a mun a bàyyi xel si jëf ju tedd googu. moom laj par laj ko ñu fi faral di andi day def saa bu ñu fi andee laj ko lañ bu baree dees koy xaajale. ñuy jox maam sa maam Cheikh jox maam Saliou Fall ndax moo di rakkam saa su ne bu ñu ko joxee bu ñu bu fi laj ko ñëwee rek dañ ko so dañ ko si ba tey jii moo si mujj waaw laj ko ji fi mës a ñëw noonu lañ koy def bu demee ba nga xamante ne nag xaw naa am nu mu toll ñu sédd doom yi waaw njaboot gi dañuy sédd waaw waaye laj ko lañu moom am na ñoo xamante ay douzaine sikki ah, sikki la ñuy andi am na xeetu laj bu ne ndax murid yi moom daanaka moom lu neex rek lañ bëggal seen seen kilifa bakkane rek seen kilifa lañ ko yéene waaw. waaw ndax moom fii day def gaaw bu jot ci ngoon mhm. daa am ma maraqit mu ñu fiy def fii mhm. ñii dañuy toog di di di durus mhm. ñii taxaw fee di di waaw yooyu yëpp dañ ko fi faral di def. waaw day dundal barab bi ñi bëgg nag loolu moom ci jëm boppam ñu gën see wane ab positif nii nii ni ñuy dikkee si barab bi ñu wan si wane si wane si positif bu wér péng nga ni moom lii moom positif la joo xam ne dañ ko wan si dañ koy jox si Seex Ibra ndax dañ koy delloo ji ndax moom dong moo yooyu loolu waaw kon nag dañ ko war a delloo ba mat sëkk waruñu see tuutal dara waruñu see gàttal dara lépp lañ ko war a yëkkati rek jébbalaat ko ko ndax lu waaye mën te war nga ko war war nga war nga ko sant jëm ji. waaw ah. ñu gis si wàllum décoration. waaw ah. nga gis ni tey xol ni ñu ni ñu ni ñu woddee barab bi. si hmm. wàllum daanaka décoration yi nga xam ne Baye yi ñoo ko fi ñoo ñoo koy ñëw defal. Hmm. Hmm. lii daanaka boo doon xool di ko def naar yi lañ koy lañ ko fa woon di gisee. waaw ah. si maanaam lu si mel ni màkkaat ay mbir nag yooyu nag. ba tey jii ñun ñu jàpp ne Baye Fall bëggul lu baax. tey ji nga ñëw dugg ci barab bu tedd bi donc li sa mam cheikh Fall doon wax naan dama liggéeyal ba sëñ sëñ Bamba ba sama barab diko ba fi ba fi ba fi ma denc lool mom magal gu jot mhm. barab bi lu mu gatt gàtt mhm. dana am lu mu génne joxe ko sëñ sëñ mën cheikh seex jëm sëñ seex jëm yëkkati ko mhm. jox ko jox ko sëñ sëñ muntaha bi bi bi bi ñu bi sëñ si loolu sëñ moraminte la tambalé bi sëñ moraminte la tambalé ndax loolu it sëñ moru njabot gi dong lay soñ njabot gi dong la bëgg soñ motax mu doon doxé mu doon doxé nonu ba légui bi sëñ cheikh jëm mi togué it moom da ko da ko baral yalla nako sama borom yagal waaw da ko baral mom bu baax baax ba ñepp xamni mom baral nako mom ndax pësteef la ci joggé waaw lepp lu sëñ bi doon def ben def nako ñaar waaw ñoo ngi koy sant bu baax bu wir waaw waaw cant koo xam suñu xol lañ ko jëtibé waaw waaw ndax soññu nañu baax a baax de jëmmi barab bi nag lii lii nii am murit saa deex moo ko fi def maanaam tudd turam moom daa ci wut sa amuñu si ndigal waaye am murit saa deex ko fi def waaye ñoo ngi ñaan nag seex bi gën koo taxaw mu def fi yeneen yu bokkut ak yii bu nee ba doon or it ñooñu gënal waaw sa yàlla mën na ko seex bi mën na ko defal waaw lii nii ab daayira moo ko fi def at mu jot ñooy yeesal moquette yi at mu jot ñoo ko fi defar muy daayira Canada maam seexum sëñ Assane bokk na sañ ña jiite daayira ba na sa ña jiite daayira ba ñoom ñooy def at mu jot ñuy yeesal ni saa bu di ràppee ñu yeesal ko waaw ñoo ngi leen di siyaare ñoom waa Canada ñëpp ak fépp foo xamante ni ab taalibe nga fa rek muy bitim réew ak biir réew mi ak fépp rek ñëpp rek ñong leen ziaré waaw ndax léeg ñu jëf jëf jo ñu jëf jëf joo xamante bi da naka yow dalé bét lool sa dañuy soñ ba soñ ñun ñi fi né sax dañuy soñ comme ni ngeen ko diggé mbokk talib yi si liñ leen andil di walum war may barab bi waye taru barab bi ku ne xamna ni lu toll ni parfum siki ak parfum ut yu chéri ak bitéli parfum nga xam ne euh ñëg la jar waaye mbokk taalibe bi dañ koy fàgg si na mu gën a baaxee na mu gën a selle te gën a neex waaye wallaay kat euh, new ñu dañuy liggéeyal maam Serap Fall doon ak Baye Fall rek di xetal seen seen seen seen seen seen seen seen néeg di bàyyi fi tedd fii nga xam ne moom la maam Serap Fall tëdd kon mbokk yi ngala rek nañu yàlla nañu sëriñ bi defal dégg topp ba lii nga xam ne suñu bàjju tedd gi moom la fi teg tey di kàddu sëriñ bi waaye ku ne Baye Fall rek war a dox si loo xam ne day dundal yoonu Baye Fall ba tax na tey loolu lañ leen andiloon muy war may barab bi waaye duñ def lu dul jox suñu baay ju tedd gi mu sànni si ay kàddu yu mujj daanaka tàggatoo ak mbokki taalibe ñu dem ak yéen ba beneen waxtu. ñu xanaa di leen sant bu baax rek ndax yéen ñi nga yéen nañ fi yebal ñoom mi ñëw fi ngir ñu baaxee leen li nga xamante moom mooy war mooy jëmmi barab bi waaw. ñoo si ñoo leen si ñoo leen sant bu baax a baax ndax ñu ñi nga xamante ni liñ ñii ñu koy wax. ak ñun ñi ñëpp ñoo bokk yem sëñ bi lu baax képp lañ ci jublu lépp loo xamante ne nag sofaan la ak nañ ko gisee rek maa ngi koy jéggulu lépp loo xamante ne aw yiw it may sàkku ñu bokk ko waaw ndax sëñ moom it ko daan wax ne boo ñëwee rombee kër jàmm bu defar ko ba mu jekk sa xol sedd sa nee na yow ka defar ka defar kër googa yiwoo mu ci am yow am nga ci yiwu ko toll waaw loolu moom njaaram lañu ko waxee woon mi ngi liggéey kër sa kër soxna Fat Jaxate googu waaw kon nag moom sant nañ ko baax a baax ndax bari na lu baree bari bari lu ñu xam si barab bii ndax 93 bi ñu liggéey barab bii ba léegi la téye woon sama loxo téye loxo Moussa Mbodj ne ko dama leen ba dama bëgg mu jàppale la ci liggéey bi Moussa moom it sant naa ko baax ndax la ko sëñ boo xoon def na ko waaw sonn lu ma ko ci dara moom it sonn lu ma si dara waaw ndax yàlla dimbal nañu bi sëñ bi waxee loolu rek daa mel ne daa am lu sëñ bi da rooxal suñu diggante kenn mës ñoo dégg tey lu ma lu mu lu ma bëgg suba ba ngoon maa nga sax waaw ndax fi mu toll nii sama jiwriñ laa ko def waaw jiwriñ si moom laa ko def lu ma ko dara lu dara lu ma ko xeebal lu ma xam ne mi ngi si rek maa nga sax lu ma bu ñëwee ni ne ma nangam dama defal nangam ma dem defi nangam loolu waaw ndax sëñ moo doo ñu boole woon. barab bi maam Cheikh Rafaal fi tëdd Cheikh Moudou Moussa Fall ak Cheikh Motaala Fall ñoom ñene ci biir barab bi eh, li di li ko wër lépp ay njabootam la mel maam Saliou Fall mi képp daaru xafoor moo ko fi rax bant bi moom si nañ ma nañ ñu ko waxee dañ ne maam Cheikh moo ko fi sampaloon boppam ba mu ko fi samp it daa woon suñ ma ndumbi ak seen Abdourahmane Lo neen ma bëgg ngeen ñëw seeral ma ko bu ëllëgee ñu def ma fii waaw waaw mooy bant bii ba léegi waaw ñu ngi sant bu baax di jéggalu ñëpp nag waaw ñu ngi sant bu baax di jéggalu ñëpp di ñaan daal suñu sama borom yàlla na fi wàccee jàmm ci réew mi wopp ji ñuy wax it mu dàqal ñu ko ba kenn dootu ko déggati mu dàq ko yépp nag réew mi àdduna bi yépp rek waaw ñoo ngi koy ñaanal ñëpp nag waaw bangi siar nak sama sang ba Cheikh Modou Falilou Fall mom Cheikh Minta maa ngi koy siyaar bu yok, di ñaan sama borom yok aw fanam yok ak wér wéram ak gudd fanam ak kàttanam ak rakkam yeeg njabootam gépp ndax mom boo ko xasee tudd moom tudd nga sëti sëtaati sëti Cheikh waaw ndax ba jërëjëf sëñ Mor euh, sëñ ta ala si kadui am solo yooyu si waxtaan bu am solo Euh, doyaluñ sax waaye daanaka waxtu bee koy laaj ba tax na mbokki taalibe yi ñu ngi leen di dolliwaat di leen di leen di leen soññi sama bopp waaye di soññi képp koo xam ne yaa ngi seetaan seen émission boobu di di di di di yoon bi am na sax ñu koy wax naan émission bi dafa gàtt waaye li ñu bëgg waxtaanee moo koy laaj ndax dañuy bañ di di di di di yaatal bu baax a baax a baax si loolee nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy doxin waaye ñu ngi ñaan ci si barkeem sëriñ bi lépp lu fi jub ñu xam ni moomee la waaye lépp lu fi dëng kat ñu xam ne wax kat gu doon bëgg wax la rek te mënul mënul xamut waaye dafa bëgg dong lépp jub wala lépp ñëpp jariñu si moo war a mu doon wax waaye ñu ngi delluwaat di dénk suñu bopp di ko dénkaat di wax ne ñun kat meluñu lu tax ñu war a toog fii naan nii lañ war a melakaano bu ñu ñëw si barab bi wala nii lañ war a doxee lu ñu ñëw si barab bi waaye dañaa bëggoon jubalekat ngir eh, li nga xam ne moom lañ teg si ay charge mooy ay règlement yi nga xam ne moom lañ fi teg mboolem ko ko xamul woon jéem ko xam si suñu jëmm yu tedd yi waaye mboolem ku ko xamul woon jëm ko déggee si seen télé boobu ñu wax Jazboul Mouride TV nga xam ne liggéey maam Serap Fall rek ko tax a jóg kon mbokk yi ñu ngi jaajëfal mbokki taalibe yëpp di nuyuwaat bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci réalisation bi ku si mel ni sëñ Ablaye ak suñu mbokkum taalibe bi kon mbokk yi di lañ jox dig daje samedi bu jot bu 17 jotee fii si seen émission taar yoon bi kon du ñu def lu dul tàggatoo ak yéen ba beneen yoon kon suñu waxtaan la bisimilah.